maa ngi sant sama xarit yi may àndal ñëpp fekk mu lu sa tur mhm. ma toogal ñi ak nekkal ñëpp maa ngi sant ñëpp gërëm ñëpp waaw mais fi mu toll dama la gis da nga gën a ñuul gën a ñàng moo xew fi mu toll xaaral nga préparation rek te la ñu woon dara dul làmb ji làmb ji moo suñu itee moo moo ñu tënkoon moo ñu tënkoon fépp waaw mais instant yii moom suñu faal naaj. démb dama la gis ngay jaabante di daw di ñëw faalawoo lijjanti woo kenn nga yéen woon combat bi lu waloon loolu. waaw non parce que dama jàpp ne man maay bëri rek. moo waral loolu quoi. ci ba bëri man moom benn lañ. Hmm. sama bis comme noonu la ci sonnee. waa Thiali métti woon na. métti woon na waaw. yombul hmm. moom dëgg fa yàlla. Ah, bu ma jógee ci loolu gannaaw rek am na victoire ñu koy félicité di encouragé ki nga xamante ni mooy guy gi euh, mais ñu gis la sa palmarès xaw na riche tuuti mais ñu gis la boobaak léegi ñu ci bàyyi ne sa làmb dafa yéex wala boo làmb da la fee bàyyi lan mooy problème bi parce que bu ñu gisee nga def vingt vingt combats seize victoires quatre défaites boobaak léegi. taxawaay ba xaw a yàgg lan la. non xam nga problème man dama bëri sama morom ba sonn dama bëri ba sonn te combat yi ma bëri ay combat la te rek man ma ko ñëw jox ma ko dama jot pour ma xool sama plan de carrière tamit xool tracé sama xool fi mu war a jaar. ma gis sa combat bi mujj bi nga bi nga mujjee bëre combat bi yàgg na xeex bi metti na lan la woon sa diggante ak général. dafa amoon lu ngeen xamante ngeen ko waxoon ñëw ren euh, nan laa ko mën a waxee waaye. Euh, règlement de compte da ci amoon sa diggante moom. non non moom mosu ñu am mosu ñu am règlement de compte parce que mën naa ne man ak moom keroog la ñuy njëkk a gisee jour combat bi. ngeen njëkk a gisee yaa ak moom. waaw parce que day woon signature ñëw naa signature ñëwul. waaw foofu naa fa ñëw defe naa waroon ngeen tase à national nga ñëw te ñëwul. lan la woon dafa am lu doon ndaw wala dafa jàpp ne ah, waa Thiaroye ñoo tëggoon làmb ji fees fa moo tax ñëwul wala. donc dëgg fa ma la wax lii moo tax man daal ñëw naa gisuma ko. mais jour boobu nag da ñëw teg sa bakkan. ci làmb faa ma teg sama bakkan ndax ndax làmb jeexaat la. combat boo amee combat te jeexaat sa morom day jeexaat ak jógee fa yaakaar naa après yow la mujjee jox victoire bi. waaw mais ñu fa boobaa léegi dégg coow li sa digganteeg double moteur sa digganteeg caat coow lu bari kaw bi ngeen tasee stade yaakaar naa jëli naa double moteur jëli naa ki nga xamante ne mooy caat maa ngi lay doog a jël si. lan moo waral seen diggante yéen ñett ñooñu. man daal maa ngi fi maa ngi xam yéen bëri laa fi bàyyi. jàmmagal Lamsaar Thiaré laa fi bàyyi. à part Lamsaar bàyyi ma beneen bër. mais pourtant loolu Lamsaar am nga fay adversaire de. Lamsaar. waaw oh. loolu foofu amoon adversaire bu sa jéem dugg foofu. donc Thiaré Lamsaar diggante nag Thiaré nag Lamsaar fii la juddoo Lamsaar fii la juddoo. bu ñu ñëwee waaw mais dañoo bees seen yoonu bopp. non non bu ñu bees seen yoonu ñoom sama ngor may ma loolu. Hmm. Hmm. mais sa diggante ak waaw sama diggante caat sama diggante caat sama diggante caat rek. combat bi laa bëgg nga ko bëgg nga caat. ah wax dëgg fa yàlla dama taxaw fenn di ko laaj nag du ma ko tëkk ma même du da nga koo xeeb. non non xeeb fan. caat bi muy bëri damaa ba ma koy xeeb. tax doo ko a laaj rek moo tax du ma taxaw di ko laaj. bu ma wax moom. Hmm. double moteur moom dëkk nga moom. bu la seet si moom li nga dëkk naa ko kay. lim bëree moo tax nga xaw ko sous-estimé bëgg a bëre ak moom wala. non non du loolu de laa damaa war a daan wala ma daan ko. daanagul moromam duwul moteur. Mm. bu la promoteur seet seet sa diggante yow ak moom. gratuit dafay euh, boobu dafa ma gis nga dëkk ko dëkk caat Jackson ñëw na la kaa ñu bëre nga bañ. waaw non mu ci contrat nañ wax si leneen. non bés boobu la moo tax nga bañ ndax damaa gis promoteur bu ne la boo nangoo ma jox la avance bi nga yóbbaale ko nga bañ. du man ak moom moo ma bañ. léegi bu weesoo ñooñu parce que am na ay adversaires yoom fi lima sànq avant ñu commencé bu weesoo ñooñu ñan nga teg sa bët fi mu toll nii maa ngi lay wax sa digganteeg bu benn baraak. su ma digganteeg Modou Anda bu Thiès bëgg naa ko. Modou Thiès doon naa mais par la suite danañ ba ci biir sama gars yi ma bu ma bàyyi biir bu ma ko jël parce que dafa jógee ci défaite. kan moo ja. waaw pourtant wax nga dëgg loolu combat ko daax. dafa jógee ci défaite bàyyi naa ko. mais défaite bi mu du défaite du ndax dafa ak manière ba daanu maytuma kenn loxo fii amul ku bëriwul ak manière ba daanu fii ku daanu si manière nga daano mais gis nañ fi xam ne dañuy ñëw duñ bëre duñ xeex daanu dem ñibbi. waaw ñooñu lam lam moo moo doxee noonu rek ku nekk ni nga war a daanoo rek. sa diggante ak ambulance bu Thiès. ah bu ma ko joxee tamit ma moo doon da laa gën a soxla ñun ñaar ñëpp ku ma ci woo Thiès ma fekk la. ku la ci woo Thiès. ma fekk ko fa dàqoo jëm mbéy ji Thiès. da ngay ma laaj hmm. li mbéy di bañ naan du ma dem Thiès ndax foofu ñoom fa lañ dëkk yow fi mu toll nii moom nga nangoo def. billaahi wallaahi talaay ma fekk ko fa. Thiès boo demee ah, kon Sidi Diakhaté ngi lay seetaan gannaaw moom day bëgg jël mbéy fii ànd ko foofu mais mbéy yu ci bay dañuy bañ. man gis naa ñu ci bay ñoom na leen mais dañoo bañ. mu rànd bu bëggee ma fekk ko Thiès ambulance bu bëggee nga fekk ko Thiès. bëgg ma fekk ko Thiès mais Modou laa gën a soxla nag. mais fa yii nag gis naa benn booy bu dëkk Parcelles. daan na topp na la nee na neexalu la benn yoon yaak moom combat la du ko dàq su ngeen bëggee ngeen ba su ngeen bëggul va cesser ailleurs la wax. kàlla Tapha Mbeur. doo wax ak Tapha Mbeur. nan wax si leneen. nan wax si leneen loolu amoo ci problème. lan la da nga xeeb da nga xeeb Tapha Mbeur la. non fan. non mais la moo tax mu laaj la nga ne am loo ci problème. amoo mais ngay mbër dagg licence. muy mbër dagg licence am na ñu toog. mais moom gis na usine laaju ko yow la laaj. waaw loolu amoo ci problème. bi ma maa ngi nii toog sama kanam. parce que Papa Sow laa ma adversaire. poutant nag pourtant nag diggante diggante diggante Fils de la ak Goro Sock bu tasee. ku ci am ndam parce que benn adversaire laa fa am. ñu Papa Sow. Franc nag. Franc mu ngi ci contrat. démb la contrat bi taxaw. waaw jeex na mu ngi ci contrat ku ne ci toog xaar yàgg. non du ci man. xam problème bi nga nit bu ma joxee adversaire. Hmm. ñoom xam nañ ñun war a ma war a bëreel bu baax. man xam na ne yàlla suñu borom seere ma du ma delloo laa mu jaaru ñu ne xam nan ko mais tamit aussi man ma nekk fii xale bu ndaw tamit bëri ay vingt combat vingt quel combat bëgg ñëw bëgg passé passé sama combat bëgg passé sama carrière tamit su lu ñàkk fayda mbër ñi ma war a bëreel ba moo ko joxee damay bëri ñoom mais nag bu ñu seetloo ci sa carrière combat yi nga xamante ne ci nga war a déclenché yu ci bëri da nga koy ñàkk sa diggante Gamou Gueye waaw ak yeneen ak yeneen mais ab làmb moo demee noonu àdduna moo demee noonu tamit mais làmb yi ma ñàkk yow rectifié waat naa ko ñu am ko après man ñi ma daan man ñi ñuy wax sax mi ma tey ñi daan kenn daanu leen si. muy kan. ay combat jànk du ma noonu jarul may li ma ma ñaar wala ñett rek. mosuma bëri mbër nekk favori mosul am combat yi ma bëri yëpp ñu nekk favori. Hmm. promoteur yi daal su ma déggee wax ji mooy buñ la seetsee adversaire yi ñu lay propose du la arrangé wala doo leen bëgg. non man promoteur bi seet sax mu ngi bëri général ba tey. promoteur yi woowaguñ la. kenn woogu ma. ah li nga fay ko dafa cher. non question cher sax xëy na ñoom dafa am lu leen tënk rek moo tax mais promoteur woogu ma dafa dëgg fa yàlla. Hmm. dafa démarche tam vers ñoom. non non man defar tam nan. ah gis sa combat yaag di neex nga dégg ñoo ngi dox combat nga woo ko na ko maag moom. dëgg yàlla mosuma kaa def te du ma ko def. Hmm. ban ban ban appel ngay lancé kon. non appel bi may lancé mooy ñuy ñuy félicité suñu Omar rek ci ndam lu am démb. di koy félicité di ko ñaanal na lu jikko mu doon ay ndami ndam di ko wax na ñun waxagul ko félicitation de. Hmm. félicitation dañ ko ko wax. dégg gu ko fi mu toll nii. dégg ko de. lu tax. xam nañ li xaar félicitation fi mu ñëwee xam nañ ko def fi dara lu def moom dafay yomb non ñun xamoon nañ lamb ndax ñun xam nañ ki ñu yor mais xamoon ngeen ko mais démb bi ngeen fi génn démb bi ngeen fi génn butéel yi ngeen fi yóbbu yëpp déglu ma rek suñu butéel ngeen gis mais gisoo ngeen butéel yi boo leen tuddee yi na ngeen tuddee guy gi ñu koy encouragé ko suñu grand la suñu grand frère la ñu ngi sa sant grand bu fair play la ni ko baax borom xol bu rafet waaw daan na démb mais bu amaatee combat kenn ko bokk ci ñaar yàlla suñu borom may ndam. loolu. ah mais àdduna loolu la ku bokk ci ñun mooy même combat ku bokk ci ñun ñu ngi koy ñaanal ndam ndax grand bu fer play la ni ko baax la dafa nekk ni ko xam moom li nekk ci xolam rek lay wax. Mhm. waaw. lan wax say say say supporters. ak ñi nga xamante wala boog lan ngay wax promoteur yi ak yenn mbër yi nga xamante promoteur yi nii sooy port ko ku bëgg na ñëw na ñëpp ñëw te jël moo kenn supporter yi loolu supporter yi ma leen wax ñoom ñu ngi may gis chaque maa ngi liggéey moom may wax ak ñoom xam nañ su ma liggéey nañ suñu liggéey xam nañ mais wax dañ toog rek suñ mooy soxla la chaque jour da nga war a jël combat da nga war a jël combat waaw mais wax bu ñu yàggam nañ jël seen temps xaar rek dara incha allah léegi rek. loo may kàddu yu mujj. kàddu yu mujj mooy di ñaanal Mama Lamine ndam si kaw Garga 2 Ameth Deme ñu koy ñaanal ndam suñu borom may ko ndam si kaw Jackson képp ñu lay ñaanal suñu borom may leen fan la jëm. Reug Reug fi mu jëm loolu moom moo xam nag loolu dañ koy bàyyi ak moom. diggante mag Sa Thiès. dëgg la koy bàyyi ak moom ak SAFM. mais yéen ci bi ngeen bokk. si lañ bokk mais dañ koy bàyyi ak moom mais am na am na ñun ay xale lañ am na ñun ñuy def waa ñu nekk suñu ginnaaw. tàggatoo ñu tëj. tàggatoo bi li may tàggatoo mooy maa ngi sant caare yi gépp di gërëm ñëpp bàyyi ma kenn àdduna wërgal képp maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp waaw. gis ngeen mbokk yi ni lay demee tey Coly lañ fi dalaloon bëgg a waxtaan ak moom ci làmb di leen jox dig daje beneen yoon ak yeneen ba jaa ngeen jëf.